sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi topp suñu dars quraul xadim ci daaray kaamil ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala cheikh muhammadul muntaqa yàlla defal ko wér te mu yàgg fi lool naalam yu rëy yi mu sumb ci jàng ak jàngale ak defar yàlla na yàlla dogal mu àggale ko te nu ànd kook moom li ñuy waxtaane tey di ko jàngale tey mooy madd ñu ngi ci ñetteelu bindam madd nag dafa bokk ci xawaayid asaasiya maanaam tër yi nga xam ni moo taawu xam-xamu tajwid ba ku koy yàq ku ca ku ko leeralut day jafe ci yow nga mën a tajwid tajwid bu set ñi ngi taxawoon ci fi xuraa yi tàmbalee wuute waxoon nañu fi ñu dëppoo ñoom ñépp wax nañu fi xaaluun ak warsh dëppoo mooy mooy gu ñu tuddee naafi naafi naafi buñ ko waxee rek mooy xaaluun ak warsh ñi ngi wax nag fi xaaluun di wuute ak warsh te bu ñu la ko waxee kon xam nga li warsh di def ndax bu ñu la nee xaalun lii lay def rek jarul ngay laaj lu warsh di def su doon ñoom ñaar ñooy ànd di def lenn danaa naafia koy def loolu mooy waxinu qiraat bu la nee naafia nàngam rek bu laaj xaalun moom lu muy def wala warsh moom lu muy def ndax warsh boo ko doon calculer mooy warsh <laughs> plus xaalun égal naafi loolu lay firi kon boo nee naa fe rek boole nga léegi nag xaaluun feddigéewu ci benn masala feddigéewu mooy ànd ànd ak sa mbokkum daara ba yàgg nga jàdd fee mu jaar fee nga jàdd fee mooy foofu la ñu taxawoon wal xulfu an xaaluuna fil munfasili wuuteeg madd mi ngi am ñi ngi koy jëlee ci xaaluun fil munfasili ci li nga xam ni munfasil la mun fasil nag wax naa la ni màdd ñaar la kon muttasil ak munfasil muttasil mooy su fekkee xarafu madd wi dañ koy baamtu ngir mën a jël bindu tey bi su fekkee xarafu madd wi mooy li am suqi gi li am madd gi ak li ko sabab moo xam hamza la walla sukkoon dañoo bokk nekk ci biir benn baat su dee sukkoon la lu mel ni xaad xaadda ñaari deel a fa nekk deel gu njëkk gi dañ koo suddoon sukkoon deel gu njëkk googu ak xaa gi xalif xarafu madd yi ñoo bokk nekk ci biir benn baat baat ba mooy xaad wala lu mel ni baatub jaa wala min maa in maa in xëcc gi mooy xarafu madd bi mu ngi ci kaw alif gi nekk ci gannaaw gi sës ci miim gi te jiitu ñëw jëkk hamza gi kon hamza gi ak madd googu danoo bokk nekk ci baatub maa baatub maa in hamza ga da caa bokk mënoo koo dagg jël in gi def ko baat del maa in gi def ko loolu bu fekkentee ni daa ne ci baat rek kon loolu mun fasil muttasil la muttasil mooy lu jokkaloo mun fasil nag mooy su fekkee xarafu madd bi daa ne ci baat comme bi ma unzila bima unzila bu boobaa xarafu madd wi daa nekk ci baat sababu madd gi di sukuun nekk di di hamza nekk ci baat ba ca topp foofu sababu madd gi mënta nekk sukuun ndax sukuun du tàmbali baat sukuun moom ci digg bi walla ci jeexital gi rek mënut tàmbali baat kon foofu xaraf sabab gi sukun lay mën doon loolu mooy mun fasal mu ni loolu nag xaalu na moom indi na warsh moom ñëpp kon xam nañu li muy def mooy warsh dafay madd muttasilan wa munfasilan leer na tegal loolu fële warsh yamuddu muttasilan wa munfasilan buy jàng ida jaa nasrullah daf koy màdd xëccal ko ida jaa nasrullahi walfath mooy ishba ida jaa nasrullahi walfath lu ma laaj yeneen règle yi nag comme taxumaa jóg <laughs> yooyu raw raw mu laaj yooyu mel noonu bu dee dafay jàngitam bima unzila ilayk moom it daf koy xëcc na mu xëcce woon ida ja kon warsu noonu lay def buñ ko tatbiqee bu dee xaaluun nag day ñëw ci ida ja mel ni warsu ida ja nasrullahi wal fath ñu niroo mu ñëw ci bima ma unzila mu ni bi ma unzila ilayk bu ko neexee riwaayatan anhu wala bi ma unzila ilayk xulf la bul jàpp ni xaaluun booy jàng riwaayatu xaaluun dangaa war a xasru madd muntasil mutlaqan déedéet leer na kon xulf la maanaam xaalun dafa am ñaari wëccu dafa am lu ñu riwaaye jële ci moom mu madd mu xasr benn bi mu madd benn bi mu xasr munfasil naxu bi ma unzila aw ma uxfi mooy misaal yi ma doon joxe hmm. déedéet waa xasr foofu bu ñu waxee xasr ci bunt bi ñu ngi ci jublu mu mel ni madd munfasil nga ni xaaluun daf koy xasru madd munfasil nga ni xaaluun daf koy xasru ndax ñi ngi ci buntub almazidi genn tabia ñi ngi ci buntub mazidi tabia yi nag moom buñ ca nekkee duñ buñ tuddee xasru mooy madd amu fa aslan su boobaa duñ tudd loolu moo tax bu ñu nekkee fii bu ñu waxee xasru ñu ngi ci jublu maanaa xasrul mamduudi yaani adamu maddihi maddan mazidiyan adamu maddihi maanaam bi ma unzila muy munfasil ñu ni la xaaluun daf koy xasru du wax bi ma unzila <laughs> du wax loolu danaan bi ma ndax tabi'i gi moo fi nekk aslan waaye du fa nekk nag naan bii ma di ko def comme ni ko kële di def leer na mooy naxwu bi ma unzila wala ay misaal lay indi misaal itam dala koy jox yow war ngaa mën a indi fukki misaal wala téeméeri misaal ci gannaawam misaal la rek wa maa uxfi wa maa uxfiya ma ma maa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayunin wa uxfi uxfi mu defe ko noonu ndax woy bi li adamil hamzati xaalal waqfi léegi xaaluun mi ngi lay taaliilal mu ngi lay jox illay lu tax du def madd munfasil mooy lan li adamil hamzati maanaam hamza gi soo taxawoon ci baat ci xarafu madd bi àggoo ci hamza bi doo ko madd ndax sabab bi tàbbiwul maanaam boo taxawoon ci baatub bima moo xam dangaa loru wax ko wala waaye bii bima daal boo ca taxawoon unzila nga bëgg koo jël unzila hamza googa ca nekk du jeexital ci maa googu nga taxawee moo tax mu ni li adamil hamzati ndax hamza gi lu ko jur mooy jokkaloog ñaari baat yi waaye du lu cosaanoo <laughs> ci baat bii wala mu cosaanoo ci baat bi xam nga bu dee muttasil ci ñoom ñaar ci seen biir fa la madd ga nekk kon mënoo wax jokkaloog ñaari baat parce que baat boobu mënoo koo dagg waaye bii nga xam ne ñaari baat yu bokkul la ku ci ne dangaa amoon te sa morom nekkut da am nekk fee kii am nekk fee bañ dajee moo waral madd gi mu ni kon seenu daje moo waral madd gi ba boo taxawoon ci baat bu njëkk bi doo ko madd ndax hamza du hamza gi du la concerné mu ne sabab boobu mooy wane ni kon du asaala amul cosaan da koy dindi li adamil hamzati xaalal waqfi leer na bi ci topp mooy wal xulfu fii fil maddi li ma taxayara wali sukuuni l waqfi wal madda ara moom it mi ngi indi wuute waaye mi ngi ci dugal boppam dafa mel ni moom ibnu barri dafa mel ni dafa far dafa far ak warsh <laughs> moom nag marokin la marocain moom warsh marokin ak mauritanien ñoom dafa mel ni warsh foofu la dëkkoon wala ñoo ko jur ñoom dañ ci dañ ci teeng lool sax ci warsh mu ni wal xulfu fil maddi wuute tam am na waaye ci diggante xaaluun ak warsh li ma taxayaraa ci baat bi nga xam ni dafa soppiku baat bu soppiku xam nga tey jaa dama ko wax ni mu bindoo ba pare doog la koo jàngal ci yeneen riwaay yi jaa amrullahi ñaata xam sañoo fa nekk non ñaar la jaa a amrullahi dajak ñaari hamza yi ci naafia day yóbbu génn hamza ga ci mu nekk musahal musahal mooy dars bi ñuy jàng mooy hamza comme a i a i comme a inna la marduduna fi lxaafira a ida kunna idaaman naxira jaa amrullahi léegi danga doon wax jaa amru loolu nga doon wax ci ci ca fële ca xafs ma nga xam ni moom day saxal taxawal hamza bi kii nga xam ne daf koy tës euh, dafay tasxiil dafa soppi hamza bi darju ko maanaam taxañ ko ci jaa ci ci madd ga jaamrullah mu ni ay a ñu bari dañuy dem ba tenki sax def ko hë ahiza wala ahinna suñu mbokk tukulóor yi noonu lañ koy jànge ahinna la marduduna fil hafira ñoom ñëpp xeb kii boobu dañ koy soppi hë ndax tasiil gi moo leen yóbbu ci kii te tasiil mooy tudde ko tudd gu woyof gu bokkut ak ga nga ko doon tudde tudd gu dëgër ndax dafa xóot nga ni i i i i dégg seetlu nga la may wax i mën naa ko tudd tudd gu oyof i mën naa ko tudd tudd gu diis i léegi du ñu wax a in a in ñaar yëpp diis da ngay wax a in a in a mu mel ni da ngay wax loolu mooy taxyir taxyir googu sosu ci baat bi nag su dikkee wuute am na ci ndax dangay ngay madd wala doo madd wal xulfu fil maddi li ma taxayyara ndax li soppiku ci baat ba baat ban sababu madd gi mooy sukk mooy hamza ga ndax jaa setatul léegi nga ni jaa boobu jëkk bi set na waaye amrullahi ba ca topp amrullahi foofu dafa am atte bu fa dugg bu soppi tëgginu ànd nu ñaari baat yi ndax soppi googa dana waral nga bañ a madd wala wala du ko waral mooy moo tax li ma tax yenn wali sukkunil waqfi ba tey sukkunul waqfi tam wute am na fi mooy as sukkunul aarid ndax sukkun gi sukkunu wax gi tam xaalu na ci genn ci riwaayam da nga koy da nga koy xasru qabla yawmil xisaab قبل يوم الحساب ñun wax si loolu lay jàng bima kuntum taalamuun wala bima kuntum taamaluun da koy ishbaa ndax sukuun googu aarit googu danga nga ko bàyyi xel loolu warsh la waaye bañ koo bàyyi xel ndax jàpp ni sukuun la goo xam ni du du cosaan ci baat bi ndax na ngay bind xable yowmil xisaab yowmil xisaab bi ngay bind kon du cosaan xaaloon ni la kon duñ ko jàng duñ ko duñ ko mën nañ koo bañ a loolu mooy wal xulfu fil maddi li ma taxayara ñaar yépp li ma taxayara la parce que sukuun gi nga xam ne sukuun laazim la amul benn xulf amul benn wuute ci dañ koy maddal ishbaa ko waaye sukuun gi nga xam ne sukuun aarid la mooy sukuun gi nga xam ni taxaw gi nga fi taxaw moo ko jur waaye moom sukuun gi dëkku fi bokkul ci baat bi bismillahi rahmaani rahim miim googu nga sukkoon wax dëgg bokkul ci baat bi day daan bi ñu daan jàng alxuraan amoon nañu génn góor gu newoon ca daara ja boo daan jàng alxuraan noonu la koy jàng bismillahi rahmaani rahimi lépp noonu la koy jàng ba mu àgg boo waxee mun la man luñ bind dama koy jàng nañ ko bind duma ko yokk duma ko wàññi yéen nag dangeen ngeen a mën a yàq rahim ngeen di wax te miim googu nekk sukkoon googu nekk fi waaw <laughs> moom noonu la ko gisee waaye kon arab du wax noonu araab du taxaw ci masque arab du taxaw ci masque aslan même soo nekkoon yow di wax ba war a sonn war a def ittiraar nga noon masalan qaala lahum nga ñëw ba ci qaala lahum nga sonn ci baatub qaala da nga naan qaal mais dooni qaala déedéet qaal daa dina qaala lahum boolewaat ko noonu ngay def mënoo taxaw ci waroo taxaw ci ak maska ci sukuun ngay taxaw sukuun googu ngay taxaw nag sukuun ñu ngi koy tuddee al aarid mooy gu gaar goo xam ni dafa juddu ci àtteb ba jàng baat bi ci la juddoo mais nekku fi mu ni nag sukuun googu bu fi ñëwee moom àtte ba ñëw na wuute wa ñëw na ba tey xaalun dellusiwaat ca wuuteem nga ni kon moom daf koy gàttal moo nekkaat ci xisaab donte xisaab am na yeneen àtte yi ci dugg yu tax mu gën a diis ndax xalxalatu baa u xisaab soo ko defee da la yóbbu ci dëgëral kay bi ba boo koy jàng da dañuy defee ni sax eh, dañuy defe ni sax dafa am shidda ndax dëgër gum dëgër qabla yawmil xisaab madd gi moo lay yóbbu ci nga mën a tudd xalxale gi ni mu ware waaye tam xalxale gi boo ko defee def madd gi dafay mel ni dafay dëgër fekk dëgërul waaye sukun googu nga xam ne aarid la daal warsh moom daf koy jàng daf koy madd mooy li nga bëgg xam warsh dafay madd madd gi sukun aarid sabab dafay madd madd gi sukunul aarid sabab doonte nag bokkewute ak yu njëkk yi ndax foofa ala xulf la xaaluun dafay màdd di xasru madd ak xas gi nga xam ne sukun aarid moo ko sabab defe naan bu fekkee dégg nañu bunt bi tey fii lañ ko mën a taxawal ndax ba ñu jëlaat beneen kii bi muy muy indi jafe-jafe kon taxaw bind foofu incha allah ba bii di ñëw ñu àggalee buntub madd incha allah subhaanaka allahuma bihamdika laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi alamin ko defee laaj bismillahi rahmani rahim ya ayyuha almuzammilu qum allayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila bismillahi rahmani rahim ya